subhanahu wa taala ngane ne man kat amna na yo xamne xam ne desewoon naa julli yoo xam ne julli ma ko fas fay nga def na fi lek yi ñaar ràkk yi boo paree yàlla daan la ci fayal ñeen fukki hat yo xamne manke won woon julli mo xam da nga julli ñaar bàyyi ben mo xam da nga bàyyi won yëpp comme nak ci ben julli ji ci yalla defal lo kon yo lu tale nga tax koko ñeen ñeent fukki at nga taxoon naa fi la boobu nag benn ñu duggaat ci bi nga xam ne mooy kaaf kafaaratu salaas euh, euh, sabin sana ba ñeent fukki at la woon